chers internet yu kenn bëggul TV dal leen jàmm dal leen jàmm ci la gën a ci ëtt yëglekaay yi ñu commencé kook le quotidien yene kay mi del ci changement bi am ci gouvernement bi kay bi du ñu xamal ni nga président de la république jamono ji fas na am yene changer gouvernement bi na poste premier ministre bi wat ko kay bi del soit ci pression bi nga xamanteni mo ngi ci président Macky Sall ne fim mu toll nii tànneef nga xamanteni ne nii ñeel poste premier ministre bi challenge la ko bëgg def ay xaat kanam yu bari ñu jortu len ne mën nañu jël poste premier ministre bi L'info yene kay ubbi ci xët bu yaat ne Macky Sall mi dee ci ay calcul deug la nekk na ci poste premier ministre bi nga xamanteni buñu may bu Amadou Ba du ci muccu Mimi Touré mën na cee bañ naka noonu tam Idrissa Seck yene kay bi dess ci la motax président de la république bëgg changer gouvernement bi mais en tout cas liko waral bokku na ci calendrier international bi nga xamanteni ne dafa charger jamono ji président de la république fas yéene jëm ci liggéey bu metti ci atum 2022 bi japp 2023 en tout cas poste premier ministre bi mom ñu ngi ci njortu Amadou Ba mi nga xamanteni ne nii expérience lool ci walu gouvernement ak état te li ko may chance sa xel yépp dem ci mom moo plan Sénégal émergent bi nga xamanteni mom la Sénégal gi di doxal fi ba 2035 mom Amadou Ba da ko naan yene kay bi ne poste premier ministre bi de buñ fa tegul Amadou Ba bo maytu ñu teg fa Mimi Touré mi nga xamante di mësoon na fee nekk premier ministre du Sénégal nekkoon fi tamit président conseil économique social et environnemental teg ci nekkoon fi directrice de campagne président Macky Sall mii kon nag mën na am à ñu jëlaat ko tegaat ko ci poste premier ministre bii yéen bi ne bu leen fàtte Idrissa Seck mi nga xamante ne ni moom tam ndaamal Kajoor mu ca biir palais ba te à mën na nekk premier ministre du Sénégal xamante ni bu ñu moytuwul poste premier ministre bi day mujjee tas gouvernement bu Sénégal bii yéenekaay bi dañoo xamal waa APR génn nañu di leeral lan moo tax président Macky Sall bu ñu waat poste premier ministre bii yéenekaay bi dalal Seydou Gueye muy dëggal tey xam nga xamante ni léegi ñu génn ci war na tax gouvernement bi am beneen élan boo xamante ni jël na ko agenda président de la république bi nga xamante ni bëgg chef du gouvernement daal xëcc poste premier ministre bi indiwaat l'observateur ubbi ci xët bu yaatu tey laajte ni kan moo nar a nekk suñu premier ministre gouvernement bii en tout cas kaay bi def na xaymaam taxaw seetlu ci yenn profil ne bu ñu moytuwul mu ci mënti doon premier ministre du Sénégal jàpp leen bi dafay tas yéen kaay bi def ci ay révélation révélation yu yi moom dañoo jaaxle ci yoon bi nga xamante ni président de la république jël na ko Thierno Bocoum ci biir yéenekaay bi di xam le ne gis nga charte réew ci boppam la ñu war fexe ba ay calcul politique duñu dugal ci ñuy foye suñu charte réew mi li li nag sénégalais yi war nañ cee wax direct news ne li jara wax dëgg moo di président Abdoulaye Wade mi nga xamante ni bëggul bàyyi politique yéenekaay bi def ci taxaw seetlu ne moytuwul ci weeru décembre bii président Abdoulaye Wade dana ñëw Sénégal yéenekaay bi def ci taxaw seetlu tey xam le ne ba jamono juñ toll nii maître Abdoulaye Wade mooy jiite PDS xeex bi moo may nekk ci terrain bi te yi ci moom la jógee yéenekaay bi laajte est-ce yi jotul tamit ñu daal jël ndono lii xaw a changé boog parti démocratique sénégalais bi en leen war la ñoom yéenekaay bi sa wet ga di ñu xamal ni lépp nag maître Abdoulaye Wade la moom woon par urgence 70 francs ñoom daal ci yoon bi lañ fexe ba assassiné ko ray ko mu dee yéenekaay bi def ci ay révélation yu rëy na ñoom ñaari bande yëpp jàpp nañu leen la leen yoolee moo di seen téléphone portable bii nga xamante ne moom la mujjee gis ci benn kër ci bande yooyu nga xamante ne ñoom ñoo ko assassiné yéenekaay bi desuwaat ci naka lañ ko rayee ne en ay kurpañ lañ ko dóor ba mu dee ci biir oto bi léegi ko yéenekaay bi ne def taxaw seetlu leen violé ci seen bërëbu liggéeyukaay <laughs> foofu de moom patron yaa fa nekk ak collègue yi fi mu toll nii moom réew mee toj kenn du mën a nettali lépp wa baax na ba suba ak jàmm incha allah. leen.

77 030 48 40 bu ngeen wootee ci yile numéro di ngeen jot ndaw yi kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy wan leen ana nan ngeen di def ba meuna a ci bile bërëb bés yi nga xamanteni mom la kenn bu Cheikh Seydi di consulter Talata Alarba alxames gaawu dibeer bi nekk bésu sàkk pexe bu delloo ci rendez-vous privé yi kii di kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy daal dina leen di sàkkal ñaari bés muy altini ak àllarba bu ñetti waxtu jotee jàpp juróomi waxtu kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy gaaw ci tawat yi gaaw ci poche yi